dañ xaw a ñàkk valeur c'est le plan sociétal et social yëpp ñàkk valeur xam nga hmm, dafa am ci obsèque kii na Diatta lu cardinal bi wax te Sénégal yi bàyyiwuñu ci xel dama bëgg valeur yi ñu ñàkk. loolu di indi loolu. Mhm. cardinal bi dane bi ñëpp gërëmee Bruno Diatta je fais partie ko jëkk gërëm parce que dafa gaañu le lendemain ma am samedi. Mhm. maa ko jëkk félicité gërëm ko ak ak ak rëpp ni mu meloon garde secret mais cardinal dafa lu moo xam ne ndeysaan suñu mbokki julli da xam ñëpp bàyyiwuñu ci xel sa li wax dëgg la nee na Bruno selon l'identité catholique chrétienne chrétienne donc xoolal éthique boobu yaa ngi dégg li moo expliqué mhm. xool éthique boobu moom et puis muy éthique bu dëgg encore ma delluwaat bu mu waxee loolu ba nu ma delluwaat seen Mansour Sy Djamil euh, maa ngi koy félicité xaw ma ne noonu loolu échelon maa ngi koy profité seen di ko félicité mu daal di wax na tamit xaw ma question de l'Assemblée nationale tam euh, catholique la nii la ñu mel mais ñun ñun jullit ñooy def nii ñooy def nii ñooy def nii pourquoi est-ce que ñu ngi ci yoonu jullit bi walla déet donc loolu nag sa ñooy majorité mooy répercuté ci kër yi doo gis mukk benn chanteur euh, je pense bien xëy na minorité extrême la du ma tudd kenn minorité extrême benn chanteur boo xam ne ci yoon boobu la bokk mu mu mu mu mu tudd naan euh, muy def lu ko lu ko neex ñun ñoo mel noonu ñun jullit yi. Mm-hmm. ñoo xamatul lu ñu war a composer euh, et puis euh, seen seen euh, mode bu bees bi mooy fu wax gën a ñaawee effectivement xamal loolu gars yi ñëw jël la dégg dégg waa ji li mu wax damay dégg ay morceaux yoo xam ne dalu ne yaaree ki nga ma soxla ay congolais gars yi di ko change indi ko mais wax dañ cay wax moo intéressé nit ñi mooy entre yéen seen jeunesse yéen seen seen génération <laughs> moo ko intéressé ñun dañ daan segg suñu wax damay composé damay déglu yi ma daan composé dama ko aji mbërki de ma ne ko ah yi ma mëntuma koo di xool rime bi ak yooyu ma ne lii ma mëntuma composé ba su ma jot gi xam nga parce que ñun dañ daan étudier xool loo xam ne dina aider peuple bi mhm. waaye du aliéner peuple bi su yu yëpp dafay dafay jouer luy aliéner peuple yoo xam ne day foloo peuple bi rek euh, il faut nous les artistes ñëpp ñu ko doon mais quelques-uns doon des artistes avant-gardistes yoo xam dina dimbali peuple bi parce que loolu moom la foo moom la peuple bi miin léegi xam peuple yi ay ay wax yu bizarre wax yu tegginuwul li ko olof di wax yu wodduwul moom la gars yi partagé xam nga li wax. Mhm. tey sama jarbaat sama set Aïda Kane wax naa ko lu ñaaw gars yi loolu ñu sawar waaye lu xam lu Père Ousan wax lan la wax Aïda Kane mais bu ne wala buñ ne Père Ousan nee na waaye na gars yi comme ni may wax nii na gars yi rek lay ñu jàngaar comme duñ ko partagé intéressé wu leen. Mhm. donc euh, new generation bi euh, surtout yéen yéen yéen yéen yéen yéen nekk ci média yi. Mm-hmm. yéen war a dimbali gars yi. waaw di ngeen di dimbali gars yi man damay gis yoo xam ne sax vraiment sérieusement ma sama diggante ak yow euh, ba ma ko si du ma ko déglu man ci si comme ça kenn ki daan saaga mosuma koo déglu ki daan saaga. mosuma mm-hmm. koo déglu mosuma ko déglu dañ maa teg pare naan ma ma ne ko noonu du ko déglu. man man bu ma dégloo sax site ubbi benn site wala Facebook dégg ko ci wax wax ju ñaaw jëm ci yow wala président damay zappé dama ko déglu rus naa ko déglu. Mhm. yooyu ne éducation boobu euh, la gars yi war a indiwaat. ci mhm. Sénégal man loolu rek laay ñaan vraiment maa fii. Mhm. yéen ñi yor média yi nag. vous avez un grand rôle à jouer à jouer parce que yéen tam mooy def seen buzz gars yi seetaan leen. <laughs> vues yu vues yu bari. <laughs>